salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan tey ñi ngi ak yéen ci seen beneen numéro wu découverte ñu ngi leen ñaanal koor jàmm ñaan yàlla ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim et terminé ko ci alhamdulilahi rabi alamin tey ñëw ak yéen ci beneen numéro wu découverte ñu war cee dalal góor gu yàgg bay waaram ci élevage ñu koy wax góor gi Djibril Wade ñu ngi fii ci Kër Massar seeti ko ci bergerie Seydi Jamil ñu si war seq ak moom waxtaan bu yaatu jaar jaaram ak nu mu def ba egg si fii macha allah donc ñu dugg seet góor gi seet ak moom waxtaan bu yaatu ba si kanam incha allah. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw sëñ Ndiaye ñu ngi ziar ñu bu baax. alhamdulilah kontaan ci dalal bi ñu dalal fii aussi. Ah, alhamdulilah ñu ngi leen di ñu ngi di dara si kër suñu bergerie Seydi Djamil. bi nga xam ni euh, seen kër la. dëgg la. di leen fi wax euh, ngeen dalal jàmm. dëgg la jërëjëf kontaan nañu trop ci dalal bi ñu koy dalal tey ñu wax moom mooy suñu papa euh, Djibril Wade mu def waaram vraiment ci élevage loo xam ne kenn doot ko présenté ci dëkk bi euh, papa léegi ñu bàyyi la nga présenté wu ñuy seetaan. ah waaw xam naa présentation bi. xëy na du gudd trop. dëgg la man maa ngi tudd Djibril Wade.

Euh, mu mën naa ni mu xaddamu sëñ Moustapha Sy la. macha allah euh, mu xaddamu sëñ Babacar Sy la. waaye mu xaddamu sëñ Moustapha Sy ndax sëñ Babacar Sy moo ko boole woon ak sëñ Moustapha Sy bi mu koy yónni bi mu koy euh, wax bi mu koy yónni pour mu ñëw Dakar. Ah. ñoom ñoom ak seen kii seen mbooloo ñoom na ko booleel. macha kon nag ñu ngi leen di dalal jàmm daal. waaw ah, mu mel kon dal nañ suñu biir kër. alhamdulilah loolu loolu am waaw photo bi moom comme ni ma ko waxee rek gis nga ñi photo bi am na suñu daayira ay xale yu nekk Pikine xale yu am pas-pas yu baax sax ñoo xam ni man ñii lañ jël def def ma seen président d'honneur daayira macha allah ñoom président Baba sa xam la alors seen benn cérémonie nag benn cérémonie boo xam ni moom la leen def si ay jàng lan ma décoré lan ma décoré lii macha allah lii nag gënal ma lépp moo tax ma fonk ko ñëw teg ko fi si biir bés seen jamil muy symboliser aussi li nga xam ne mooy euh, mooy mooy mooy daara ji ak bërëb bi macha allah macha allah mel ni tur bi kon jaralul ñu laaj bergerie Seydi Djamil fu mu jógee donc loolu leer na uh-huh. loolu leer na mu mel ni lii tamit ay champion yi fi jot a jaar la waaw euh, xam nga man euh, élevage yàgg naa si mm-hmm. ndax su ma nattee su ma nattee mën naa jàpp vers les années 1983 1984 là ci commencé di di yëngu te bi ma si duggee léegi vraiment liggéey naa si ak ay maal yu bare bare bare tey jii boo duggee sama gétt gi xar yi fi nekk yëpp fi leen juddoo fi leen cosaanoo fi leen juddoo seen i ah, parents seen arrière grand parents seen arrière arrière grand parents jëm yi aussi fi leen juddoo voilà donc nag il euh, m'arrive nag may

Moi, papa pas bi parce que moi euh, la comment s'appelle encore c'est euh, euh, tout. si famille qui là quoi. famille voilà. kii mooy Maysa voilà gis nga Maysa mii. Maysa hmm. mii doom la si kii. Maysa mii ngay gis nii. doom la ci paa bi waaw doom la ci paa bi. gis nii maam la si booy séeréer. waaw ah. booy séeréer bi bi bi bi Abou Kane yore. Ah, waaw bi Abou Kane yore ah. booy séeréer moom bokk na ci xar yi gën a siiw. ci voilà booy séeréer bokk na yi gën a siiw. Ah. bon loolu nag yàlla moo koy def. yàlla moo koy def parce que dafay am euh, toujours euh, foo xam ni euh, loo gis rek am na lu ci yàlla di. joxe dugal loxoom nga xam ne day nekk lu fës gën a ràññeeku mhm. booy séeréer si la si la bokk il a marqué son époque waa ba nga xam ne tey jii boo nee élevage laadum ñi mhm. même boo ko waxee ñu wax koo xam sax xamu ko bu baax mais boo nee booy séeréer rek il se retrouve dana ne ah booy séeréer moom c'est vraiment macha allah voilà macha allah mën ci biir waaw incha allah on peut fondateur fondateur Adamga, aussi réseau national des éleveurs du Sénégal, euh, aussi président RERA, vice-président des éleveurs de RENADES. loolu pour distinction yo yo yo lan la lay bon 10e euh, satisfaction avec parce que euh, d'abord je ne suis pas président fondateur de la l'ADAM je suis. membre fondateur membre fondateur membre fondateur de l'ADAM hein. ah, si membre fondateur de la boc quoi.

def nañ ci foire bu map léeg-léeg ñu defee ay manifestation donc foofu mooy rera bi d'accord voilà euh RENAS nag mhm. mooy réseau national des éleveurs du Sénégal réseau national des éleveurs du Sénégal nak euh liko sabab ak li ko indi mooy élevage ñu dañ ci yag di dem ba un temps ñu gis ni amna na nu muy doxee noo xam ni méngoowul ak ñun. suñu ko bëggee suñu suñu gis-gis. ak ñu ko bëggee ak ñu gis ni muy doxee. ñu am nag benn euh, groupe d'éleveurs yoo xam ni dañu dajaloo ah partager vision boobu ak euh, kii bi nga xam ni moom doon moom la ñu gëm ñun ah si la ñu xool taxawal euh, réseau national des éleveurs. réseau national des éleveurs du Sénégal n'ak association bu mag la boo xam ni ëmb na ay association yu bare bare bare. Mm-hmm. law nag si biir Sénégal yëpp ah.

jëm na si euh, côté association boobu ba nga xamni ni. Mm. fi mu toll nii euh, mën na wax ni euh, je suis le président effectif du Renades. d'accord mais Renades actuellement yéen yan jéego ngeen def par rapport au Covid bi aussi yan gàllankoor ngeen ci am ci milieu élevage aussi est-ce que ministère de l'élevage yéen a ngi ci gis sen bopp par rapport à implication bi war ci ci Renades est-ce que yéen a ngi ko ci gis. bon par rapport à Covid mom moom xam nga Covid mom il faut dire que.

bon euh, di leen orienté si fi nga le moi le membre la bëgg. moom la bëgg mu xam mais aussi di leen encadré ak di leen jàppale. association yi bokk de di foire nag yëpp Renardès na ci jàpp surtout le président Omar Sow. Mhm. Euh, da ciy def loxoom bu baax a baax mhm. et Renardès yëpp euh, de manière générale aussi. Mhm. dañ ciy def seen loxo bu baax baax mais ñun duñu fois mais li nga xam daal. seen activité principale yi kon kon activité principale on, euh, on œuvre dans on œuvre euh, surtout dans le social social bi moi, dinañ euh, jàppale dinañ jàppale éleveurs par exemple on a fait beaucoup beaucoup d'activités ay dons d'aliments ay dons de bourse bourse bourse d'élevage dons de don de don de don de géniteur ay dons de don don de génitrice am na ay ay on a créé une cellule une commission femmes et jeunes en élevage boo xam

Euh, xam nga wax naa la sànq ni la. Ah. nous sommes un groupe d'éleveurs. ñoo xam ni qui partageons euh, les mêmes euh, la même vision. la même passion la même passion la même vision. mais aussi xool xool ni am na taxawaay boo xam ne dañ ko war a am si si élevage ak si éleveurs yi. Hmm. tey jii loolu sax c'est une question boo xam ni dama ci sawar répondre hmm. parce que tey jii renardis bu bu génnee ak riiran bi ak riir gi. Hmm. da ngay ne.

gis nga fi ni tay tey jii euh, macha li ma fi yore nii pour ma génne fi ben añal ak mm. ben año wala affaire yoy wala ben ki ben femelle wala yoy maye ko du dara du dara machallah du moy dara si man ah, ah, ah. voilà donc ku mel ñu mel ñu mel man tam bare na surnaage loo xam ni c'est des dizaines de personnes bu ñu soxla ñoom ñep kenn ku ma yoy yaay yaay indi sa contribution indi ñu joxé bu fekkee par exemple léegi dañu am sam ay euh, activité wala que yu ñuy def aussi en général si suñu si suñu propre ressource la ñuy jël si la ñuy jàppale jàppale d'accord ah daal si ci gata daal en gros quoi loolu en gros mooy mooy mooy kii voilà. d'accord machallah allah yow sa passion ci élevage loolu loolu fan la jógee. bon passion ci élevage euh man na wax ni euh, passion bi def ma dugg rek xam nga habité ah. Mhm. mooy euh, depuis sama ma nekk xale. loolu mas naa ko wax sax ma nekk xale ñun ñu ñu man maa ngi dëkk Pikine juddoo Pikine yaroo fa. Mhm. alors yow sa def naa xam naa ni. Euh, doomu Pikine nga doomu Pikine la waaw doomu Pikine nga mais eh, xëy na génération yi ñuy xaw a. bokkul waroo tuuti ah. voilà bi ñu nekkee xale ñun dañ daan def bu tabaski jotee suñu papa yi bu ñu jëndee seen xaru tabaski yi xari tabaski bu ñu ñëwee ku nekk da daan taxaw di xool sa papa ban xar lu jënd. buñu ñëwé nak ñuy génne xar yi génne xar yi ki na sama pap sama sama xar pap mo ëpp sa xar sa xar pap bi bi mo gëna rafet bi mo def nii xam la donc da ci affaire xale yoyu fofu presque fa la ma bi gëna ki finalement aussi après bi may dem nak di xol xar yi di xol xar yi dem sama kën nijaay babakar Gueye koku mo sama yaay ñoo bok ndey ak baay usine mom dafa lan yar ay xar yo xamni bo boo leen gisee da ngay gis ni ay xar la mais du xar comme yeneen xar bi parce que si seen dayoo si seen taar si seen kii xam nga. dafay mel ne que par exemple léegi soo doon xool euh, ay fas rek ngay doon ba ay fas. ba benn bis rek nga xëy ñëwaan rek benn fasu course benn fasu naaru góor. voilà xam nga day gis ni. day am différence day am différence. xar yooyu nag noonu lañ mel ak xar yi ma daan gis. xar yooyu nag daf ma. marqué daf ma marqué ah. ma taxaw ni ma ni ma ni xar daal il faut ma xam am ci xar yi topp su ma yaay bi après di wax.

Mhm. Et en général da ngay roy lu baax soo gisee lu baax gis lu rafet ñu ko mhm. aujourd'hui beaucoup de gens beaucoup de beaucoup de gens ont investi ce ce ce milieu là surtout les jeunes mhm. parce que liñ ci gën a gis li ci gën nit ñi d'abord peut-être la passion mais au-delà de la passion au-delà de la passion vision renardiste moi, objectif renardiste au-delà de la passion ñun on se dit que on peut vivre sa passion et vivre de sa passion hein c'est-à-dire que nit ki man nga mën nga di nekk si li nga bëgg bëgg di ki dund. mu lay dundal mu lay dundal. nga ci am yëg-yëg. moy ci am banex mais di ki dund. donc lool nak fi toll ni je pense que fofu lañ toll par exemple les foires. Mhm. foires yi euh foires yi ça a permis de vulgariser euh, l'élevage de la race ladoum au Sénégal tay yi euh. dans les coins et recoins les plus reculés. du mhm. du du du Sénégal. Mhm. ñëpp xam ne xaru ladoum. mais lool nak buñ ci jegee buñ ñu jegee lool nak

de, de nos bêtes. Ah, de, de, de la production quoi de la production parce que mm. di nga produire mais des fois pour nga jaay problème la. problème la te xar yi dafa bari charge c' des charges fixes. yoo xam ni euh, un coût très élevé. Mm-hmm. dégg nga donc su que ni da ngay euh, yar rek doo jaay aussi. finalement fii affaire affaire yi mujj mais mais surtout en ces périodes de Covid là est ce que jaay bi demain comme nous mu daan demee. Euh, Covid bi dafa gën a dafa gën a nërmeel affaire bi. Mm. mais même avant Covid aussi jaay bi sax xawna na taxaw xaw na xaw taxaw mhm. bon loolu nak aussi euh, y a des niches amna yo xam fo xamni ni ñu nu explorer wara exploiter te mhm. xëy na peut-être loolu foofu egguñ fa mhm. te te aussi aussi euh amaguñ ci aussi euh, jàppale bi nga xamni mom lañ ci war jàppale bi quand je dis jàppale bi moy état état bi moy c'est le ministère de l'élevage waaw c'est le ministère de l'élevage parce que tay di amna euh, ben ki bo xamni ben ki bo xamni état l'état bi tan ko sax def mais je pense que. Euh, comment s'appelle encore Je pense que. defin bi. Hmm. defin bi moo. jéego yi ñu ci war taw jéego jéego yi ci def. Hmm. ak ni koy defee mo xawa mo xawa dess parce que ils ont acheté ils ont voulu acheter des géniteurs. Hmm. Ah, jox ko dans yob ko dans dans dans le monde. euh, euh, dans le monde rural. parce que lolo ma ngi nuyu Aboukan de passage président Aboukan. la dernière fois ñu ngi ci doon ñu ngi ci doon wax. lolo mm-hmm. waaw. si si Aboukan euh, wax na si lu am solo. Mm-hmm. euh ma ngi suivre sen émission effectivement. Mm-hmm. am na ci lu am wax na si lu am solo. mais lima bëgg wax moy euh xam nga aujourd'hui dafa am lo xamni euh soy def ben sooy def ben sooy def benn affaire. sooy def ben affaire da nga ciy ak euh, da nga ciy acteurs yi nga ko yi defal. dëgg la ko da il faut les impliquer. Hmm. ça il faut les impliquer pour que loolu résultat bi nga xamni mom moom nga si bëgg am. waaw nga mën ko ci am. parce que dafa war a am yéen da ngeen wara ñëw comme yeen a gën a xam xar yi. voilà ngeen am ben accompagnement bo leen defal. voilà nga nga nga mën ko ci am. Hmm. euh amna temps bo xamni ñun gis nañu fi euh état bi doon am sa ay ay ay marché yo xamni ni da ko ñu jox ay ay ay éleveurs c'est pas wala ay ki

pour ñu jéggi ko pour ñu sori ko day day kii léegi nag ñun suñu amélioration suñu suñu xar yi dañu seen destination dafa war a nekk si améliorer race locale bi euh, c'est ce qui sont dans le l'élevage extensif mooy aujourd'hui ñoom ñu mën a fexe ba seen xar yi mën a yokk si dayo mën a yokk si ci si ci poids hmm. mën a yokk ci ci valeur marchande ci lépp ci esthétique esthétique et tout d'accord nak nag nak euh je pense que buñ ci buñ ci agone hmm. dina non seulement dina dimbali euh, euh, éleveur élevage bi nga xamni ne ñoo ne ñoo ñoo nekk dans dans l'extensif mais aussi dina nek ay ubbeeku ci aussi ñi nga xamni ni ñoo ñoo nekk yar euh, ay ladum hmm te bëgg di jaay seen jur te te te te marché bu ko un marché à prospecter. L'autre marché c'est peut être aussi sur le plan sur sur euh, le côté euh, sous-régional. le plan sous-régional aussi. sous-régional parce que la fois passée maa ngi a am na benn xar doon vers le Mali. waaw ak yooyu. Maliens ils viennent di fi jënd ay xar di dem bon mais de manière un peu dispersée quoi voilà mais par exemple les ñun j'aurais bien aimé euh, comme ñun ñi def ni les foires yi ñi def ni ñu def ko ay foires foires sous régionales hmm? yoo xam ni on on implique kii bon je pense que Adam euh, la seen dernière foire bi ils ont peut-être un peu euh, ils sont allés un peu dans ce dans ce sens-là hein parce que invité nous ay Gambie Gambie ay Niger affaire yooyu je pense que côté yooyu leen war gëna liguer a liggéey travailler pour que suñu xar ñu mën a parce que mën a am visibilité mën a am ah. génn pour que ñu mën si vraiment jëriñoo macha allah léegi ñu jëm ci prix prix laadum prix xam nga prix bi mm-hmm. parrainage yi nit dégg mm-hmm. laadum bi jëndee naa ko 40 millions mais munu ko gëm mënul mm-hmm. gëm nii par exemple maal bi wala femelle bi jëndee naa ko tant de millions loolu loolu ban jàngat nga ci mën a am ci par rapport à ça ak jeunes yi aussi nan nga gisee seen implication par rapport à l' waaw xam nga eh, prix laadum moom yemul fenn quoi parce que xam nga laadum yi dañu bare ño bokk ben ben deret pratiquement mais dañu bare té outé si sen ay critères ak sen ay mensuration légui nak par rapport ak critères yi ak maturation yi nga xamni mom moom la moom nga le sujet di présenter soo ko soko soo so so so soo soo fay am ben ça ça attire quoi donc ki ñëw sa gétt ah li li gën a fes li gën a li gën a li gën a taaru li gën a rafet li gën a kii ah kooku moom moom lay bëgg mhm. mais yow tam moom nga bëgg waaw yow tam moom nga a bëgg par exemple mhm. léegi nag su fekkee yow li nga gën a bëgg moom la gën a bëgg mhm. pour mu jot ko si yow il faut mu foqati ko foqati ko boobu nag moo indi ay financières yi moo indi prix yi di yéeg ba yenn prix yi am naa fi ay añal yoo xam ni ah, kii euh, comme añal yi nga xam ni euh, ñu ngi soog a fet ni ki ay cinq mois yooyu xam nga bon yi ay nit dañ fiy ñëw. bëgg leen seppi mais am na si yoo il me propose ay 2 millions par ben wala. Ah, par par añel par añel mais du ko joxé ah, parce que yii euh, ñoy ñom ñom ñam lay euh, préparé. pour relève pour relève ok C'est comme comme gétt après na leen génne. Ah, gétt gi soo leen xoolee. ah C'est est c' est bu ma sélectionné. Mm. ñoo xam ne ñi fa nekk ñii. Mm-hmm. c' des ñom tam ay ay añel yo xamni qui ont une portée mhm. au maximum deux. parce que maintenant suis suis élevage mhm. en général euh, je procède par sélection et par élimination. d'accord je d'accord y a des jeunes sujets. Je mhm. suis benn wala presque euh, des fois.

ban ban ban ban jeune voilà bon euh, comme ni ma comme Malbi, actuellement ni bon euh, papa dit papa papa papa Salam Salam. papa ah. papa papa farawad farawad. femelle femelle espoir bi dit, papa dit, deuxième ah. mooy yaayam waaw waaw farawaat boobu nag farawaat bi ak euh, li ma la ma wax mooy. Mhm. Euh, am na si ja Jamil. Mhm. Euh, am na si si si macha allah bon am na aussi si si Bachir bi ah. ah. si Bachir bi waaw. moom par exemple ku ko bëggoon génne exemple. kii daal li ma la mën a wax mooy bi ma ko jëndee suñu mal. waaw.

Euh, mu ñëw si mois quelqu'un est venu me proposer 10 millions. Ah, c'est sûr euh, uh-huh. il m'a proposé 10 millions ma ne ko non qui m'a uh-huh. parce que man ne pour

ah nga génne ko en masse mhm. yombul il faut le dire ah, yombul te nag loolu tam aussi tant que arrivé nu à cela mhm. ah euh, résultat bi ñu si bëgg dëgg dëgg duñ ko am waaw loolu daal mooy li nga xam ni war nañ ci gën a xalaat gën ci gën ci góorgóorlu mhm. gën a fexe daal euh, nu nu fo foo xam ni boo produit rek boo loo produit rek mën ko génne mën ko génne même prix yi nga koy joxe du yem. mais aussi li nga bëgg li nga mën a li nga mën a li nga mën a produire yëpp. moom nga mën ko écouler écouler voilà. Ah mën nañ xool bi yeneen yeneen sujet waaw mën nañ xool yeneen sujet boo ko wax. waaw a 10 mois ay mi ngi toll si ay 10 mois. 10 mois fii fii la juddoo aussi yaayam. Euh, mooy doomu Aram Bakar ah Aram Bakar euh, def naa aussi.

commencé na bi mi ngi soo commencé tëm ni tëm na bi ay quelques femelles uh-huh. bon sax dama koy abale dama ko ama ko abale woon des fois sax waaw ah donc euh, su ma gisee ku ci bëgg mën naa ko ci defal xéewal quoi dëgg la macha allah parce que wane na aussi éleveurs parfois esprit de solidarité boobu ñu am parce que dañuy alante ay maal keroog ba ma demee ci abukat maa ngi benn maal bu tudd bi grand ran daanoo. ci la ko ko Mansour Mbodj góor gi Mansour ah, ah, ah, jox. mu liggéey ci mu ne ni solidarité boobu élan de solidarité boobu ci seen biir. rafet na quoi c'est à saluer. oui élan de solidarité boobu nga wax nag. Euh, macha allah gënoon na fës gën a feeñ si ñun suñu temps si ancien yi. Mm-hmm. parce que ñun daan nañu abalante ay maal. Dan nañu dénkaante ay ay mal daan nañ mayante ay tëb vraiment daan nañ defante ay jiw ak teranga yu bare bare si oh. si biir xar yi si biir xar yi ah. ah bon léegi nag avec ni élevage bi tëddee ni ca nii duggee dañu gën a jiital l'aspect financier afro khalis bi quoi deug la ba nga xamni lolou tam xawna reuy lu bare bare bare bare mhm. si euh, lolou ngey wax ni mais solidarité bi wara am ak mhm. jappante bi wara am si bir éleveur yi ak yoyu ah. parce que ñu si bare bare dañu yaakaani sax même buñ la buñ la buñ la dimbalé si si ci teub wala ñu may dara après peut-être di nga am lo xamni amuñu ko deug té alors que c'est euh, def lu baax mhm. ah du tere du wàññi dara sa sa lu baax da koy yokk rek mais du ko wàññi loolu tam je pense que maa nga ci euh, gën ñaax xale yi pour ñu hmm. gën a xam ni affaire bi bon lu fi yàlla teg la te sel te lu sell tedd la hmm. dañ ci war a euh, rafetal di ci góorgóorlu te di ci defante lu baax voilà pour loolu am gis naa ci gis naa ci jeune boo xam ni moom dafa ni dafa

am naa si si yu mel noonu si sama xale yi sama ñoo xam sama ñoo station ah. ñoo xam ne jàpp naa si loolu ñoo xam ni am na si kenn ñaar ñoo xam ni euh, def na wax na ma ay wax yoo xam ni egg egg naa foo xam ni vraiment lépp moo ma gën a lépp si lépp ma la may si xaalis wala yooyu ah. kenn kii dafa ni ma bi ma ko mayee tëb mm. am na si benn jublu jublu la si benn xar boo xam ni ah. fay na ko ci 2 millions te jaayu ko. te mosul xalaat nit na tey millions. voilà ah ma ni ko loolu de kontaan naa si yàlla ci yàlla si yàlla ci yàlla de barke. am na ci keneen koo xam ni. Mhm. dafa ni ma yow femelle bi femelle bi ma ko joxoon. Mhm. ah nee na femelle boobu de moom dem na si ba mosul am euh, amuloon kër. mais dem na ba yàlla dimbali si ba femelle boobu si la amee terrain bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu jënd bi mu tabaxee. te aussi si le commencé ba tey jii presque mi ngi mi ci këram. machallah waaw yooyu yëpp nag xam nga dara ki ko. barkel la barkeel la té fierté la aussi. pour ñu waaw satisfaction morale bu réré le boo xam dara ma ko fay. machallah légui bi bii jeune beneen jeune mal la. voilà ki itam jeune mal la waaw. gis nga bi ah, uh-huh. euh mok bële ñoo bok papa. moog ko ñoo bok papa. ñom ñom mal bi ma li ñu ko la joxone ba ba lay wax ni waaw mooy seen papa moko ko moo ko jur. kii aujourd'hui moom tam mi ngi si ay ay ay neuf mois yooyu quoi. neuf mois dix mois mi ngi soo commencé di tëb nii. jeune mâle te aussi am nañ ci vraiment am na si yaakaar waaw. kii beneen jeune mâle la kii beneen jeune mâle kii mooy kii mooy Sogolo. Sogolo Sogolo. Sogolo Sogolo moom tam euh, moo kële ñu bokk papa. moo bokk papa parce que niróo nañu. moo ko jur. mais moom yaayam doomu yaayam doomu yaayam doomu yaayam doomu All Black la. doomu All Black la waaw yaayam doomu daaxal. macha allah. voilà yaayam doomu All Black la. waaw moom nag. bàyyi so Sogoloo mi nag. Uh-huh. dafa porté dafa dafa une histoire. Uh-huh. parce que bii li tax ma tuddee ko Sogoloo. Uh-huh. bi muy euh, moom bi muy soog a judd. dafa judd rek tànk yeeg cër yeeg bañ. waaw mënul jóg mënul taxaw. déedéet kay. trois jours trois jours quatre jours. presque une semaine. waaw mais ma gis moom benn xar boo xam ni. dafa am caractère. boo xam ni damay gis ah. muy mel kuy bañ. di di forcer fattaxuwaay di forcer mm-hmm, pour jóg. di forcer pour jóg di forcer ba ba ba ba mujj rek mu mu mu jóg taxaw. taxaw te xam nga xar bu soog a judd rek day rek. taxaw yaay ji mar ko rek mu jóg taxaw. Mm-hmm. ku toog ay trois jours quatre jours mën taxaw. Mm-hmm. mais muy muy muy muy forcé ba jóg taxaw. Ah. bi mu forcé ba jóg taxaw aussi tànk yi bañ muy latasi. Ah. après bi tànk bi muy bi muy tànk yi jege ba mu ba mu bañ. mu jóg rek ma gis mu commencé di forcé di dox.

ay infirmité xam la ak ay laago ah ñu koy ñu koy yuuxoo di ko kii yaa ngi yaa ngi di mer ak moom caractère bi mu amoon ni mu fippoo ba ba ba ni mu jege jege taxaw ah moo tax ma tuddee ko Soglo macha ah, allah kooku histoire la quoi histoire la histoire la oh, ba pare moom macha allah ndur mun nañ am ci moom yaakaar non kii moom kii moom waaw par exemple euh, ni ma ko gëmee moom ah ni ma ko gëmee moom ah uh-huh. si critères yi mu am nii uh-huh. parce que xam nga tam loolu aussi euh, xam nga élevage aussi hein, waaw So, bëggee bu fekkee da nga réussir cet élevage surtout élevage de de de de sélection. nga xam mm. nga xam da ngay si si génétique. Hein. si génétique alors il faut aussi essayer aussi de réussir les croisements. si surtout. croisement yi moom croisement yi moom. fa la nit ñi di gën a kiyantee. dëgg mm-hmm. la parce que nit ñi di parce que croisement yi aussi il faut ngay ngay jéem a xool ay euh, ay sujets yoo xam dina am complémentarité seen qui dina dina dina dina méngoo par exemple qui limu am limu am si critère mooy mooy mooy doole bi mu am amna na poids mooy poids mooy mooy poids am hmm. mooy mooy mooy par exemple cër yi mu am hein mais auteur bi auteur bi Euh, desul oto bi ñëwul. ñëwul bi ñëwul. mais oto bi mi ngi si biiram. mais da ko da ko làq si mi ngi si gendarme mais da ko làq. parce que ay maamam. Mm. ay papaam ay yëpp. ñu ngi ci kaw. kon loolu mi ngi làqu si moom. Uh-huh. mais mën na ko génnewaat. kon soo jàppee ni mal bi dafa dafa gàtt rek dama dama ko jox mu tëb. Euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi euh, sacrifier loo xam ni. waaw ah, xëy na xëy na. Euh, mën na bañ a feeñ ci moom mën na bañ a feeñ ci moom a ah. moo tax dama ko jox ay femelles yi comme femelles yi njool yi waaw ah su ma ay couragement incha allah gis ay résultats boo fi ñëwaatee incha allah yàlla bàyyi lu fi incha allah fii ak euh, un an deux ans di nga gis ay doom yoo xam ni euh, même pas sax ay produit yi di commencé wàcc. incha allah boo fi ñëwee te la wan. Mm-hmm. man la bii daal doon gis nga gis nga kii incha allah. macha allah incha allah yàlla yàlla def ko. amiin amiin maa ngi mooy xidma. Mm-hmm. bon xidma nag euh, sama rakk sama jarbaar ju baax. Mhm. muy euh, Birane Gueye moo am yéene rek. Ah, mhm. ñëw jox ma ko ne président daal. vraiment jaar naa ak bergerie mais am naa maal boo xam ne bëgg naa mu jaar fa liggéey. macha allah dégg nga mhm. moo ma ko jox. alors euh, ma indi ko fii gis nga moom mooy soo commencé. tëb fii premier doom bi mu fa am moo nekk nii. mbote bi moo gis moo jur bële mbote bu góor bi. am na ay 15 jours fi ñu toll nii. 2 semaines wala wala 3 semaines. Hmm? mooy voilà mbote boobu waaw mbote mbote yi dafa juragum. Uh-huh. mais moo tëb moo tëb xar yi xar yi nag wàcceeguñu. waaw wàcceeguñu waaw moo tëb xar yi xar yi wàcceeguñu. communes yi may sélection yi mooy yi may def nii yëpp. ay tënk lañu. Uh-huh. qui ont benn une portée uh-huh. wala yu soo commencé porté. bële rek bële rek moo si mag. moo jur moo jur bii. bële. te kooku moom collier rouge bi waaw collier rouge bi. ñu ngi si quatrième portée. quatrième portée waaw yi ki des yëpp. Ah. benn portée la am. waaw te xaw soo xoolee xar yi aussi. Mm-hmm. gis nga seen euh, maturation seen seen hauteur. ñoo seen hauteur bon euh, ak vraiment seen euh, boo xoolee seen boo xoolee seen kii nga xam ni. Mm-hmm. c'est presque une même génération. ñoo bokk génération. allah mu mel ni ay femelles yu rafet la vraiment yoo xam ne dinañ am façon portée bu ne. voilà c' ça c' ça. est ce que ça bu mag comme bon ça dépend rek ah am na femelle boo xam ne jël naa ko fi yéeto la naa ko jaay huit millions jaay naa ko jaay naa ko huit millions ah. waaw benn femelle boo xam comme ni ma la wax rek waa ji da ko soqal si waaw am na des fois gars jaay yëpp sax ay prix yëpp loolu foofu box yi waaw gis nañ gis nañ gi gis nañ vraiment emplacement bi ñu wax am na vraiment macha allah am na investissement bu fi nekk et que di la wax ni que lii lu yomb du lu yomb et que c'est ñuy wax ministère de l'élevage ak ñi ngànk élevage ci dëkk bi muy état bi ñu mën a mun leen bàyyi xel yéen ñi xam ni sukkal élevage par exemple am ngeen ay ay ay jéego yu rëy yoo xam ne ko tàmbali ci ci ci eh. pour plus de considération xam-xam bi ngeen ci jotam ñu ngeen di war di constaté wu ci li jëmale élevage kanam waaw ñu contanon trop di la dara ci émission bi di découverte ñu wax la rek nga sa mo boy tëjee waaw waaw jërëjëf Ndiaga ma leen di gërëm di leen remercier bu baax baax mm-hmm. bon li nga ma wax sànq rek xanaa na ci def benn glissement rek. Mhm. mooy l'état parle de euh, l'employabilité des jeunes. des jeunes ñun aujourd'hui nous sommes des euh, acteurs nek ci élevage bi tey yàgg ci. Mhm. am nañ ci ay propositions. Mhm. yu bari yo xamni ni nañ ci indi suñu suñu suñu euh, comment ça participation ba ci côté élevage bi ñuy nek ak nga xam ni ñu ci bari dañu investir ci biir. ñu xol ñu leen mën encadrer ba ki si lolu mi ngi mel ne que. Euh, dag hein? les dag pour les les les yu mhm. les les euh, domaines euh, agricoles communautaires. c' c'est de très bons projets de mhm. très grands projets. Mhm. de très bons projets. qui peuvent générer beaucoup beaucoup d'emplois. mais il faut qu'on fu pour pour loolu nous ñu ñu acteurs, ko nous sommes des acteurs dund am nañ ci euh, lu luñ ci xam lu bare bare bare mm-hmm. loo xam ni suñ suñ suñ ci partagé ak kii xëy na peut-être même bu dul sa wax lépp ba mhm. si mën na am lu jëriñ ñu pour pour pour pour pour pour jëriñ ñu ma sha allah doguma la pap malik ndour directeur product xam naa dina seetaan vidéo bi xam naa peut être du ñàkk ay bés ngeen toog wala ngeen ànd ci dag yi parce que foofu aussi prévoir nañ ko def émission mhm. incha allah dina la incha allah aucun problème loolu loolu dinañ ci euh, dinañ ci euh, sawar ci dikk rafetlu mhm. on a eu am na ma seen am euh, benn réunion ak moom sax toog ak moom pap malik pap malik ndour ñi koy encourager di ko féliciter di ko wax ni

yàlla na si yàlla def barke te jubal ko lépp luñ si wax loo xam ni lu safaano la ñu ngi naan ñi ñuy euh, seetaan ak ñi ñuy déglu hmm. euh, ñu jéggal ñu ko ñu jéggal ko xëy na xam ni yéene bi ak intention bi du woon loolu pour wax leen rek li nga xam ni moom la ñu xam ak luy jariñ ak luy jëriñ rek partagé ko ak ñoom si si leen si jublu woon hmm. di leen gërëm bu baax di wax ni télé bi moom ah suñu télé bopp hmm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla yëkkati ko si kaw yàlla barkeel ko te yàlla ba def na si barkeel pare li nga xam ni moom ngeen ci taxaw di ci mbébét yëpp hmm. li nga ci liggéey yëpp yàlla yàlla def ci lu gën a jox maa leen bu baax di leen sant li moo nekkoon seen émission découverte ñu ñëwoon fii bergerie Seydi Djamil fii ci Kër Massar ñu leen jox dig daje kon bu beneen